ñu ngi euh, dalal euh, monsieur Youssou Diallo président club Sénégal émergent ni ki Tampésia bu Sonacos euh, ñu lay gërëm ci disponibilité bi di la dalal jàmm ci matinalu Rewmi FM. waaw maa ngi lay gërëm Adja di la sant di la di la jéggal aussi di la baalu àq di la baal àq di baal mboolem sénégalais yi et di gërëm waa Rewmi FM parce que seen disponibilité mais aussi ak seen ligne éditoriale et je crois que bu équilibré la. Eh, boo xam ni macha allah am na solo surtout fii fii fii réew mi toll et eh, di ñaanal Sénégal yëpp mm. yal na yàlla def jàmm ak salaam def jàmmi xel jàmmi xol mm. jàmm yaram defal ko mboolem Sénégalais yi mais aussi def ko ci biir kër yi mm. def ko ci mbedd mi def ko ci dëkk yi mais surtout def ko ci réew mi yëpp surtout ci élection yi ñu jëm muy 2024 nga xam ni nit ñi xaw nañ ci am njàqare loolu nag maa ngi koy ñaanal réew jullit yëpp et particulièrement di ko ñaanal réewu Afrique yi. et ma xalaatee diggante li xew Mali li xew Guinée li xew Burkina Faso ak dëkk yi nga xam jege na et surtout li nga xam ne may xew Soudan fi mu nekk ak ci yeneen dëkk vers République démocratique de Congo ak yu mel noonu ak la xew ca Palestine ak ci àddina set ñaan yàlla jàmm parce que lu dul jàmm jàmm ko gën te jàmm lépp lu baax ci la xaj. donc di ko ñaanal réew mi di ko ñaanal àddina sépp jërëjëf am na solo alors euh, réew mi nag wàllu politique li ci gën a fës bokk na ci euh, Idrissa sekk njiital parti réew mi jël dogalu jóge ci bopp conseil économique social environnemental ay ministre am itam génn ci gouvernement bi gannaaw ba mu waxee ne dafay doon candidat ci élection 2024 bi ak li ci topp yëpp comme coow euh, en tant que membre ci benn bokk yaakaar noo gisee loola xew yëpp fan yi waaw defe naa loolu xaw na xëy na mën na niru lu bette waaye man mi eh, ko xaw a am expérience tuuti ci politique eh, du la du la bett lool parce que eh, coalition boo ko gisee ñu koy wax ci ci politique mooy ay nit ñoo xam ni dañuy daje pour ànd ci diir boo xam ni dafay yemamaay ci ci temps bi maanaam mën na gàtt waaye mën na gudd tuuti waaye lu mu yàgg-yàgg teqalikoo dafay am parce que ñi daje wolof nee na euh, ñaari mbal ñaari kuy duñu duñu duñu bokk benn mbalka léeg nag bu ñu xawee xiif wala mu am lu xew xëy na mën nañu bokk mbalka mi waaye nag am na lu mu yàgg-yàgg ay la yëwoon daañu daañu mbëkkante mbëkkante ba nag mën nañ ci gaañante wala mën nañ ci ñàkk bañ a gaañante et bu ma ko doon misaal ci sëy dafa mel na xëy na Idrissa Seck ak euh, Macky Sall dafa am teqali ko waaye tas amagul buñ koy misaal. nañ ko misaal noonu parce que euh, daanaka daal ku nekk sóor nga ni. et delluwaat. mën mën na nekk et aussi te njaboot gi. Mm. mi ngi ci diggante bi. Mm. kon nag euh, nañ ko déggee noonu Idrissa Seck ni mu ko waxee wax nag ci ay termes yoo xam ni xëy na xoromu na mm. waaye nag ay kàddu jàmm la waaw di wane ne xëy na ëllëg du añ du reer waaye maa ngi koy sóor et président Macky Sall aussi ni mu waxee daanaka noonu la demee léegi nag ci en tant que ku bokk ci benn Bokk Yaakaar li may ñaan responsable yi ak militants yi ñu déggee ko noonu xam ni daje mën na amaat te te waaw dara bañu ñaaw te lu mu metti metti Idriss Seck élection yi ñu génn présidentielle 2019 yi et eh, moo jëloon deuxième moo ñëwoon gannaaw Macky Sall te force politique bu significative la et eh, gis nga fan yi bi mu dooree di communique gis nga bépp maanaam eh, ni mu ñaar ñaar bi amoon diggante Ousmane sonk ak Macky mel na ne léegi am na ñetteel ñetteel pôle te xam nga loolu dafa am solo ci politique. Mm. te am na ñu wax ci ay analystes nii xëy na Ousmane Sonko li ko tax tey jii dem fi mu àgg mooy dafa am ñoo xam ne dañ fi nekkul woon. Mm. Euh, di di xalaat surtout Karim Wade di xalaat xalifa Sall. booba Idriss Seck mi ngi ak Macky Sall gis nañ fan yi bi Idriss Seck kiwee ni mu ni mu demee mm. te et gis nañ ni élection léegi Sénégal de plus en plus et surtout ni législative yi demee ak la xewoon euh, en mille xew en 2012 et euh, yenn xeetu élection yi de plus en plus ñaareelu tour lay lay réglé woo kon nag eh, te nguur yi nga xamoon yëpp amuñu woon allié yoo xam ne dinañ leen mën am en cas de deuxième tour dañu daan kon nag loolu lu jar bàyyi xel la ba nga xam ni eh, xëy na teqalikoo neexul tas amagul e nañu eh, daal di masla xëy na mburoog soow bi xëy na am na lu ci lu ci lu ci lu ci tab waaye waaye mburoog soow bi yàqoogul kon nag defe naa loolu daal nag nit ñi bàyyi xel moom lay woo responsable d'abord yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar mais aussi di ci woo responsable yi nga xam ni ñoo bokk ci réew mi euh, politique nag du ñàkk euh, léeg-léeg jàmmaarloo du ñàkk mu xaw ñagas tuuti waaye daal na nit ñi xam ne daal eh, mburoog soow mi yàqoogul. Hmm. voilà yàqoogul est-ce que mënul tekki ne tam ñoom ñaar réeroowuñu ci mbir mi. Eh, waaw maanaam euh, boo gisee xëy na dana am réeroo ci xëy na li teew nii waaye xëy na mën na am réew réeroo du am ca la nga xam ni mooy mooy mooy cëppaandaw la hmm. te cëppaandaw la nag moo am solo. voilà donc. loolu daal naka nit ñi ci loo xam ne duma ko mën firi ba mu leer parce que xam nga ci politique lañ nekk. Euh, mais defe naa li may wax xaw na leer ba nit ñi mën ko dégg. dégg nañu la alors leneen ci tolluwaay ci réew mi ci wàllu politique mooy F24 bi ñu taxawal muy xeeñ M23 ci 2011 ndax euh, loola tekkiwul ne deltu nañu ginnaaw wala avancé wuñu ci wàllum démocratie ndax tey moom la F24 di xeex waaye itam ñetteelu mandat ndax du dañ cee taxaw wala ñu del ci ginnaaw. dama ragal ni du réew mi dellu ginnaaw wala nit ñi euh, defe naa ni ñooñu di ko sumb ñooñu ñoo dellu ginnaaw parce que euh, danaa la wax léegi fekk ni ni Karl Marx nga xam ni ku xereñ la ci politique communiste yi yëpp daanaka mooy seen kilifa Karl Marx sax ci boppam daf doon reprendre philosophe allemand bu mag boobu ñuy wax Hegel mm-hmm. mu ni euh, mbir mu amoon boo ko bëggee indiwaat bu jëkk ba day nekk loo xam day mën na day nekk dogalu yàlla waaye nag ñaareelu yoon ba boo koy def dafay mel ne da ngay théâtre maanaam da ngay bëgg li nga xam ni yàlla dogaloon na ko nga jëm ko indiwaat te xam nga yàlla na muy dogaleek na muy defee moom rek moo ko mën keneen mënu ko et muy wane ni réew dafa am ci sart yu mu taxaw sart yooyu nag li mu wax mooy élection buy ñëw bépp sénégalais boo xam ni eh, am nga sart yi nga xam ni ci wàllu yoon mooy tax nga mën a nekk candidat sañ nga déposer sa candidature même bu fekkee ni candidature bu sax boo koy déposer bu wóor na ni xëy na mën nañ ko bañ nangu te kooku di ko nangu nag kañ koy déposer moom mooy conseil constitutionnel léegi nag bu ay nit parce que candidature diw Macky Sall neexu leen ñu taxaw ni dañuy def kuréel pour bañ candidature boobu am ñooñu ñi ngi taxaw di jàmmaarloo ak yoon. mais ñi koy wax teguñu ko ci Macky Sall neexu dañ ko teg ci kenn mënta def lu ëpp ñaari mandat yu toftaloo bi constitution bi wax ak tam li président Macky Sall ne woon moom pare na ci. waaw maanaam euh, euh, candidature boobu baax nag baaxul. Mm. du ñoom ñoo koy atte ña koy wax naa la ko mooy conseil constitutionnel. léegi nag Macky Sall waxoon na xëy na wax na leneen léegi kooku et eh, ci politique yàgg na ci. nee nañu politique du du ëmb day jékki-jékki rek wasin et Macky Sall am na fu mu teg li tax mu def wax loolu ñoom kañ bu fekkee am nañu euh, xalaat ak ay argument yoo xam ne dañ ko war taxawal pour que sénégalais yi xam ni kat kii li muy def jaaduwul nañ ko yemale ci loolu te dem wuti nit ñi. parce que lu mu lu mu lu 2011 2011 coow li bare woon na fi trop. am na ñu ñu faata dëkk bi togg na fi ay fan. bloqué parce que agaguñ ci la xewoon 2011. waaye même ci 2011. ba koy conseil constitutionnel dogale jàmm nee na ñooy ñay wuti euh, euh, candidat euh, gagné dem nañ ci nit ñi. ñi nga xam ne nag xëy na amuñu nit wala yaakaar ñu gagné. Mm. et jóge nañu place de l' indépendance dem defi leneen. te defe naa ni conditions yi amoon 2011 am amul kii te li xew fan yi ci li ñu doon wax gatsa gatsa gis nañ ni état sénégalais yàlla macha allah am na kattan boo xam ni ci wàllu defendre boppam ci wàllu yoon boo xam ni e jéem ko jéem fexe ba mbedd mi wala ay trouble am ci réew mi créé yenn situation yi yaakaaruma ko kon nag euh, nañu góor góorlu te dafa mel ne dafa am aussi nit ñoo xam ni xëy na ci tension ak crise yooyu ci la ñuy dund mais defe naa ne bi yoon gëwma loolu dina mën am surtout que bu ma xoolee ni réew mi ci Pâques chrétienne bi gis nga ni l'abbé yi ñoom ñëpp wootee jàmm ak jubo ak waxtaan gis nga ci korite gi imaam yëpp seen sermon ci jàmm ci waxtaan ci jubo ci dialogue moom la ñu woote ba ci leader politique yi dégg nga message bu président Macky Sall ci jàmm dégg nga message bi nga xam ni moom la Ousmane Sonko wax sa Ziguinchor c'est la première fois dégg naa ko mu wax ci lu leer ci jàmm ni jàmm ñaar ñoo koy seq xëy na ay nag dana am benn nit koo xam ne dana am dafay bëgg ay wala nangam ak nangam waaye le fait que mu wax jàmm ba wax wane ni moom eh, taxaw na pour jàmm am defe naa kooku signe bu am solo la beneen bi mooy message bi Karim président Karim Wade joxe nii moom daanaka opposant bi ñu gën a persécuté bi ñu gën a bunduxataal ci réew mi moom la waaye moom loolu yëpp nangu na ko ci wàllu politique bal na ñëpp et moom disposé na pour que ak partem pour que ñu waxtaan pour que sénégalais yi dellu ci jàmm na réew mi meloon et ñu jëm fexe nu ñu nu tabaxi réew mi defe naa loolu xëy na am na léegi nag am na ci ñoo xam ne xëy na Eh, ñoom eh, seen gémmiñ day naaj. Mm. Eh, te wolof nee na ku sa gémmiñ di naaj doo wax jàmm. Mm. kon nag amagul benn entité politique li ñuy wax ni opposition bi dafa rejeté appel bu jàll déedéet benn opposition rejeté gul daanaka Mimi Touré moo génn wax ni dialogue bi ay naxaate la Mary Teuw Niane gis naa lu mu bind ci loolu ni moom d'accord ci naxaate la ak keneen ku ñuy wax def naa Cheikh Tidiane Dièye ak euh, wax nga ma léegi ni Abdoul Mbaye xëy na kooku mais xam nga ñooñu politiquement tekkiwuñ ci réew mi loo xam ni eh, eh, am na solo lool ci politiquement kon nag force politique yi nga xam ne tekki nañ dara ñoom kenn déggagu leen ci xam naa ni ñu ngi saytu mbir mi ñu ngi koy xeel ci ci ci ci fànn bu mënti doon mais man daal bu fekkoon ne am na lu ma leen di digal li ma leen di digal mooy daal euh, eh, wolof dafa wax mais foofu wolof dafay reprendre hadis ak lislaam lislaam nee na e, woote du farata waaye wuy ji woote farata la surtout woote boo xam ne dafa dem ci jàmmi réew mi dafa jëm ci luy indi waxtaan dafa dafay indi loo xam ni dana tax réew mi yëpp xëy na li ñu ragal ci élection yi ñu dégmal muy 2024 et loolu ñu ragal nga ñu teggil leen ko defe naa ne kooku farata la te ku la woo nag wolof nee na dana la wax baa mu jox la kon nag ne serait-ce dem déglu ji et xëy na boo d'accordul nga ni a ah, man bëgg naa ci ñëw waaye nag e, balaa ma ciy ñëw il faut que lii am loolu yëpp ci biir waxtaan la waaye nag boo taxawee ne duma dem fenn te may fàttale nii tey jii am na ay fukki waar ay téeméeri doomu aadama yoo xam ne ñeenti téeméer am na ñu wax ñeenti téeméer ñi ngi ci kaso yi parce que dafa am manifestation yu ñu yu ñu programmé woon ñoom ñu ñu tere ko ñoom ñu dem ca ak yeneen ak yeneen mais ñooñu ñooñu ak seen ay mbokk tey jii ku taxaw naan du ma waxtaan mais ñooñu seen yow ak seen mbokk duñ la faale parce que la ñuy dund ñoom ñoo ko xam. waaye nag taxaw ci rajo di wax ak nangam ak nanga wala nekk sa salon climatisé wala di seetaan télé wala yu mel noonu. Eh, eh, bu la neexee yow mën nga wax loolu waaye nag ña nekk ca kaso ba fekk si woo leen xëy na dimbale woo sax seen mbokk parce que ñi ma ci dégg ñëpp gaw ma ni ñooñu am na taxawaay bu ñu taxawaay mbokk ñooñu nga xam tey ji ngi ci kaso bi kon nag na nit ñi delloo seen xel ak seen sago et force politique yi significative yi nekk ci réew mi ñu def preuve de responsabilité parce que ay sénégalais lañu dama koy faral di wax xëy na yàlla def na mënuñu bokk xalaat waaye nag yàlla dafa ñu forcer mënuñu ñàkk dund ensemble waaw ñi nga xam ne nag xëy na mën nañu wute xalaat waaye force ñoom ñooy dund ñooy bokk ay kër ñooy bokk ay quartier ñooy bokk ay région ñooy bokk ay département ñooy bokk réew mi ñooñu faw lii mën tax ñu ànd mooy d'abord dañuy bëgg jàmm dañuy respectante waaye aussi dañuy waxtaan mënut a ñàkk démocratie weesuwul lool. voilà donc loolu daal man laa ci laa ciy wax ci mbir mi. ñàkk waxtaan week ñàkk ànd bi euh, ñuy sàkku euh, ban njeextal la mën a am ci réew mi ci koom-koom euh, kuy saytu wàllu koom-koom nga en tant que président club Sénégal émergent pour ñu xam ne peut-être enjeu yi romb na way politique yi mais réew mi ci boppam moo soxla dal. waaw dëgg la dëgg la mën na am ay jeexital ci ci dalu réew mi waaye réew mi am na crédibilité boo xam ni. Mm. et gis nga fan li ñu ragaloon yëpp gis nga taxawaay bi. état am maanaam état boo xam ni sax du benn parti muy force de défence yi force de sécurité yi muy justice bi ba nga xam ni ko gu bëggoon troubler wala nga bëggoon indi salfaañe réew mi eh, defe naa ni dara xewul kon nag ñooñu di wax loolu xëy na bu ñu amee xel tuuti sax xool rapport de force bi am ci réew mi ci diggante état bi ni mu taxawee ak force politique yi war nga xam ne am na loo xam ni ku koy jëm doo def loo xam ne dana dana dana mën a sotti kon nag li fi des mooy ñu waxtaan ci ay doomi réew ñoo xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaye wute nañu ci xalaat ak xëy na ci bëgg-bëgg waaye nag faaw comme que danañ dund ensemble et danañ dem ci élection ci jàmm ak salaam et buñ ca demee réew mi ci boppam tànn kamu bëgg pour mu jiite réew mi bu ñu defee tànn tànneef boobu aussi ñu delluwaat ci jàmm ak salaam jublu ci liggéey et ñi opposé wu opposé wu ñu nekk ci pouvoir ñu ñu nekk ci pouvoir. jërëjëf amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey euh, monsieur Youssou Diallo njiital club Sénégal émergent nekk itam PCA bu Sonacos SA jërëjëf. jërëjëf merci.